jëkk a wax mooy sëriñ Cheikh la ñuy waxal ndax sëñ Cheikh fii lañ ko tànn teg ko fi ñu bëree bëri taxaw lànk na duñ ànd ak moom campagne ko wax ju ñaaw dina ñu wax ko ci groupe yi booba ñun ñoo taxawoon di ko défendre ci fépp suñu temps suñu lépp ñu bàyyi ko pour di défendre sëriñ Cheikh kon tey bu ñu demee bay tànn sëriñ Cheikh teewal fi parti bi bu ñu dee tànn war naa am matu taxaw décider na lii nii moom may am ci parti bi buñ ko mënu mu bàyyi ñun ay ndaw lañ loolu lañ ci defante képp koo xam ne pare nga pour defante ñun pare nañ pour defante ak yow Saliou Dieng ñëpp xam ne yàq rek moo fi indi waaw Touba saa bu waxee yàq lay def Saliou Dieng moo raw feneen ci bâtiment yàq rek lay def ñun nag pare nañ pour jàmmaarloo ak Saliou Dieng ak képp koo xam ne Saliou Dieng am na parti la parti bi suñu parti la duñ ko bàyyee kenn mu di ko yàq lu ñu leen teral rek ñun teral nañu ko duñ fi nekk di xeex du bii booba ba léegi ñu ñëw di yàq di yàq booba ba léegi ñu ngi yàq léegi nag yàq gi dañu wax ne dafa tàkk yàq gi dafa doy yàq gi dafa doy saalu jee nañ ko dàq saalu jee nañ ko dàq saalu jee nañ ko dàq ay poñ la yoo xam ne daanaka génnul liñ fi doon wax sànq ay laaj yoo xam ne war maanaam mbooloo mi ñëpp moo ngi seen gémmiñ moom lañ war a wax muy ay kat ay ponk yoo xam ne war nañ koo jàllale ci kaw ñun nag fi ñu doon nii pare nañ lépp loo xam ne combat bi da koo laaj dañ koy def biñ ponk yi nag dañ koo tënk ci juróomi ponk li fi dajale dañ koo tënk ci juróomi ponk ponk bu njëkk bi mooy dañoo seetlu ne Saliou Dieng bi gars yi doon wax fii moom moo joxoon ndigal karimis yi nga xam ne ay booyam lañ ñu leen di wooyee Saliou Dieng booy ñu boycotté élection yi passe biñ bi leen joxee ndigal li moo leen yóbbu Dakar defal leen formation ba pare moo leen yóbbuwaat leen fal ay ndomb ay poste yoo xam ne yu kawe lay doon ci parti bi te ñëpp xam nañ ne booy yooyu ñëpp booy boycotté élection yi passé te nit ki mënoo ne da ngaa sanctionné Ndiogou Dieng ca Géejawaay ndax daa boycotté ndigalu parti bi bàyyi ay xale yoo xam ne dañoo boycotté liste bi ñëpp teg seen bët nga leen defal sax ay promotion loolu dañ naan lekk xaalis bi APR dem fu ne ñu dugg fa ba pare ñu wëlbatiku di leen bëgg a def ay mandataire loolu dañ ne dañ koy dàq dañ koy ñaawul loolu mooy point bu njëkk bi point ñaareel bi mooy chargé des élections bu parti bi muy Cheikh Dieng dafa war a mat goo xam ne day jël ay responsabilité di consulter base bi balaa moo produire benn notification bala ma balaa moo nommé kenn mandataire daa war a laaj base bi ba pare waaye déglu Saliou Dieng wala boog doon bouton Saliou Dieng Saliou Dieng fu mu ko tourné mu jëm fa loolu lañ leen a dakk te na jël ay responsabilité di consulter base bi bala moo jël yenn décision yi ndax décision yi mu mujj jël lépp Saliou Dieng moo ko dicté te jàpp naa ne Cheikh Dieng war naa dépassé foofu na mat matu boppam wuyu liñ koy wootee wooye ñetteelu point mooy dañuy demander waa parti bi ñu changer immédiatement Saliou Dieng nañ ko dàq ci poste bi nag ndax ñëpp xam nañ ne mënut liñ ko dénk te mataliwut liñ ko dénk ndax moom far-far loo lay def ku ko mën a teel ay dàllam mu lay jox ay ndomba tànk ndax ñëpp gis nañ ne mi bu ñëwee Touba ñu koy teeli dàllam lay seet. ñun nag am nañ dignité boo xam ne duñ tel kenn suñu dal ndax ëpp ñu jàng ëpp ñu at te ño ko ëpp base ndax fa dëkk kenn reconnaître ko amul base fenn. ñëpp xam nañ ne wu parti bu yàqoo moo ko yàq ndax 98 ba léegi PDS mënul mësul ñàkk Touba 98 ba léegi ba 2022 PDS bu ñàkkee élection Touba mooy élection 2022 yi la ñàkk. te loxo Saliou Dieng moo ngi ci ndax moom mooy yàq parti bi fii ci Touba ak fépp ci Sénégal fépp ci Sénégal sax laay wax ndax fi problème bii moom la waa Kolda am waa àll bi moom la ñu am waa ñëpp moom la ñu am bi topp mooy Saliou Dieng moom xamul sax luy parti bi ndax moom ay mbokkam ay deretam waa socialiste lañ dañoo ñëw ñu parachuté ko muy def lu ko neex bëgg a rey parti ndax moom boo ko neexee mun la dinaa la yóbbu ca kaw boo ko neexu mun la dinaa la daaneel loolu la fi nekk loolu lañ ne na dakk tey na dak bu ko defee ñuy récompenser liggéey ku liggéey jariñu koo xam ne yaa ngi ñu gis la ngay liggéey sa résultat yooyu am fay loolu nag moo ne mooy mooy ñetteelu poñ bi ñeenteelu poñ mooy Saliou Dieng moom interdit nañ ko mu dugg Touba interdit nañ ko mu dugg ci département sax Mbacké muy parenage muy délégation moo xam lu mu ko parti bi yabal fii ci Touba bu fi duggee ñun la koy jëflanteel bis ni ki tey moom déclaré nañ ko persona non grata ci Touba fii départ ci Touba Mbacké bu fi ñëwee nag lu ko fi dal moom da ko moo ko teg boppam. juróomeelu point mooy notification bi ñu notifié ne mandataire lañ tànn fii ci département muy ñaari mandataire loolu moom assemblée bi da koo dàq ci àll ba te di woo parti bi mu ratifié loolu ndax mënuñoo consevoir ñaari mandataires yoo xam ne kenn mënu cee bind benn rapport jàpp nañ ne mandataire bala moo mat day mën a bind mën a lire mën a lii bind ay rapport di joxe. te jàpp nañ ne ñi fi doon def élection yi passé seen liggéey matale na ndax bu ñu amee résultat yi ñu ko am amakus néew ci àll bi waa mandataire ñoo ko teg ñoo ñoo ñoo ko liggéey moo tax ñu ne waa assemblée bi nañ reti euh, ñooy demandé ñu rectifier notification yooyu ndax kenn reconnaître ko fii te ci àll ba lañ ko sànni jaa jëf loolu moo doon point yi ñu doon waxtaan bu fekkee ne problème boobu continué nan mooy fas yéene nekk seen taxawaay. li ma wax léegi mooy réponse bi ñoom dañ leen déclaré persona non grata maanaam dañ leen interdit ñu dugg dëkk bi tant que réglé situation boobu. tant que réglé wuñ situation boobu duñ dugg ci dëkk bi ñoo leen ko wax. da ngeen a jàpp ne seen ndaw yi dañ leen bëgg a teggi am ñeneen ñu teg ci kanam. waaw xam nga loo gis rek signal la ndax dañoo jëm ci ay élection muy élection législative te buñ leen bàyyee ci leen neex yaama neex la ñuy fal liste bi de ëllëg te yaama neex googu kat bu dee moom dong la jàpp naa ne ñi toog fii ñëpp kenn du ci fal kon li li ñuy séntu ñun liñ gis mooy notification yi amul njariñ waaye la ca kanam moo gën njariñ te loolu la ñuy xeex pour la ca kanam bu ñëwee ñu teg ko ci norme yi nga xam ne fa la war a jaar ñu jaar la ko foofu. voilà xeex bi kilifa yi nekk ci parti bi ci Touba ndax am nañ ci taxawaay. Saliou Dieng dàq na kilifa yëpp Touba presque pedes amatu fi ay mag ñëpp daa bàyyi nañ ngir jëmmi Saliou Dieng PDS ñëpp bàyyi nañ ngir jëmmi Saliou Dieng li fi demee ko néew mooy ñii mooy ñii mooy des. bëgg favoriser kenn ñett nit ñaar nit dàq nañ mag ñi wala ay xale nangam nangam te ñoo xam ne amuñu benn responsabilité seen kër baay sax nga bëgg leen teg ci kaw nit ñu loolu duñ ko nangu. Cheikh Abdoulaye moo ciy ñun suñ position lañ xam du ñu laaj position keneen ñun suñ position mooy li ñu engagé mooy waa parti bi ci boppam ak délégation yi nga xam ne Saliou Dieng moom la jiite duñ dugg ci département bi tant que réglé wuñ situation bi.